ñu ngi fii ci diwaanu Medina Mbaba ngeen gis euh, ndox mi ni nga xam ne ni moom la def inondation bi nga xam ne ni moo fi am ci taw bi nga xam ne moo fi am tey ci fajar gi gis ngeen fii ci Medina Mbaba li mooy fi nga xam ne mooy pont bi moo nekk nii xamatoo fi mu toll ni canal bu mag bi moo fees nii dugg yëpp ci kër gi comme ni ngeen ko gisee nii. waaw comme ni ñu ko gisee nii rek mu ngi nii ñu nekk fii ci diwaanu Médina ba ci gif ndox mi nga xam ne taw bi fi moo fi am moo euh, nga xam ne mooy euh, jéey yi di yi gis ngeen kër yi nekk fii yëpp ci booru Médina ba ci premier pont jàpp deuxième pont lép dafa nekk inondation gis ngeen kër yi dafa fees dell dell dell dell ak ndox ba nga xam ne ñi dëkk ci kër yi ñu ngi génne di uti foo xam ne fa la ñuy daw làqu ji gis nga ni ngeen gis nga canalisation bi canal bi moo fees nii dell dell ba mënatoo xàmmee canal bi ak euh, suuf si ci diwaanu Medina Mbaba comme ni leen ko waxee woon muy ku gis lii doo xam ne ndax point bi fi am déet fekk ne boobu benn canal bu mag moo fi nekkoon waaye taw bi moo gis nga ni taw bi def moo tax euh, fii yëpp euh, indoone na nag euh, bokk ci quartier yi nga xam ne nii jege na fi nga xam ne mooy kër maire bi lool lool lool lool lool lool sax waaw ci yoonu Medina bi la fi ñuy wax deuxième pont. waaw comme ni ngeen ko gisee nii rek ba tey ñu ngi fii ci diwaanu Kaolack ci quartier bu ñuy wax Medina Mbaba. benn rek mbokk yi saxoo di seetaan Saloum ci ñu ngi fii ci diwaanu Medina Mbaba ba tey nekk fi nga xam ne mooy premier pont ngeen gis ba tey ndox mi ni nga xam ne def na ko fii ci diwaanu Medina Mbaba euh, ngeen gis li yëpp li canal la canal la mais fi mu toll nii mënatoo xàmmee kanaal bi ak suuf si euh, gis na lépp moo àndee maasee nga xam ne kon population bu Medina Mbaba ñu ngi dund ay jafe-jafe jafe yu métti ci wàllu ndox mi nga xam ne wàcc na fii ni ki ci fajar gi fii ci Kaolack gis ngeen ñoo ko gisandoo gis ngeen li yëpp ah, ndox mi la kër yi fees dell dell dell dell dell dell dell dell canalisation la li canal bu mag bi moo fi jaar mais fi mu toll nii mënatoo xam exactement fan la canal bi toll ak fan la nit ñu war a mën a doxee donc mu nekk risque yoo xam ne yu bëree bëree bëri mu ci ci xale yeeg ci mag ñeeg ci ñëpp gis nga nit ñi ñu ngi noonu niñ teglantee seeni siis pour mën a toog mbokk yi saxoo di seetaan Saloum Actu eh, muy ci ñaari côté yëpp côté bee ñu jógee ko ñëwaat fii ci côté bi lépp ci deuxième pont euh, premier pont euh, ci diwaanu Medina ba mu ngi nii rek gis ngeen ndox mi ñi nga xam ne def na ko fii ci wàllu inondation muy taw bi nga xam ne moo am fii ci diwaanu région bu kaw Kaolack gis ngeen nit ñi ñëpp ñu ngi génn seen kër yi ndax kër yëpp fees nañ fees dell dell dell comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek fi mu toll nii lii canal la canal la bu mag mais fi mu toll nii mënatoo xam canal bi fii la yem. ak fu mu yemul fu mu toll nii risques yi risques yi bëri na lool lool lool lool waxuma la kër yu fees yem ci rek waaye risques yi ci boo génnee war a génn xamoo fooy teg sa tànk. xam nga fan nga war a mën a doxee ndax canal bu mag boo xam ni moo fi nekk jéggi na dayo jéggi na dayo comme ni ngeen ko gisee ni gis nga nit ñaa ngi noonu gis nga xale yi risques yi nga xam ne xale yi ñu ngi dox mais exactement fi ñuy dox nii canal mu ngi seen côté waaw te tey lii yëpp dara dara dara dara dara dara dara dara dara wóolu ci comme mbokk yi seetaan Saloum Actu ñoo ko gisandoo gis ngeen nit ñaa ngi nii di xuus gis ngeen xale yi ni ñu doxee ci biir ndox bi mooy taalibe ñu ngi noonu ci biir ndox mi di dox ndax dañoo war a génn dem te xamuñu fu ñu war a jaar. ci ba tey ñu ngi fii ci diwaanu Medina Mbaba eh, comme ni ngeen ko gisee nii rek li nga xam ne mooy taw bi fi am fii ci région bu Kaolack ci suba bi moo fi def lii nga xam ne waa population bu mel ne Mbaba ñoom ñu ci inondation ndax fi mu toll nii gis nga kër yi yëpp a ngi fees del ni ñaa ngi génn seen kër yi nii ñoo ko gisandoo. Hmm, gis ngeen ndox mi ni mu def fii ci diwaanu parce que canal bi moo fees te canal bu feesee rek ci biir kër yi la jëm ba fi toll nii mënatoo xàmmee canal bi. fi canal bi yem ak fi mu yemul mënatoo koo xàmme donc muy risque bu ngand boo xam ne ni waa population bu deuxième pont ñu ngi koy dund gis ngeen xale yi ci ndox mi